dal leen ci kër Bamba Imo kër Bamba Imo mooy seen agence immobilière bi nga xam ni dafa spécialisé wu lool ci kuy jënd kër képp ku bëgg jënd kër ci Touba ak ci réew mi yépp ñoo gunge location kër ñoo lay gunge it nga am sa kër kër gu rafet defar ko ba mu yànj bëgg ñu gérer la ko ba mu baax luweel la ko di la verser sa xaalis ñun ñooy kër Bamba Imo fii ci Touba kër Bamba Imo fii ci Touba spécialiste lañu tamit ci ay terrassement de maison wala boog terrain plan construction de maisons les plus jëm immobilier du la Bamba Immo waaye de am agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage de gueule dañu lay luweel sa kër waaye dañu koy garder de dara du sécurité Nous dañ ciy dox ci entreprise bu te am nañu service sous transfert d'argent assurance de véhicules toute branche sous le siège mi ngi nekk fii ci marché d'Alifort 77 339 88 55 wala 77 233 36 17 wala 33 33 832 37 18 suñu succursale ba nekk ci Touba Touba Touba 28 janook route National bi ak station Mac Kurbamba Imo 77 446 23 40 wala 33 978 40 89. أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته بكي جناب سنتي الله جلي كي ينتبه عليه الصلاة والسلام نغي ياتاسون جاينتكي شيخ الخديم اك سونو كيفال اك سونو ياكار تي موم دلي في كي بين مي دي بينتي شيخ مسامبا رضي الله عنه di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu noo ngi nuyu di siyaar kilifa gi yoon wi asayid cheikh mohamadinil muntaqa ibnu sayidil bachir yal na ko yàlla sàmm te aar ko te wéral ko te yàggal ko te eggaleel ko te nu ànd koog moom noo ngi nuyu di siyaar cheikh mamor anta sali cheikh masamba di ñaanal yàlla tabaraka taala mu defal ko ak bëggam te eggaleel ko ay nisëram te may ko wér te lepp nu ko ak mom nga gi nuyu sëriñ ibn ibnu cheikh al mustafa di ñaan yalla tabaraka taala yalla mag ñi yàlla na ci kawam di nuyu kilifa diine yi te di len ndokkeel ci liggey bu mag bi nga xamne ci lañu genn te moy joxe gën doon joxe wéru yalla wu tedd wu sell wu màgg woowu ak ngeeneelam yi ci aju yalla nuko yalla yàlla nangul ibaadaat yeeg ñaan yep yalla nuko yalla nango. lu jëkk weer wi ak weer wi ak ginnaaw weer wi mu ngi siyaari mboolem mbokki taalibe yi di nuyu sëriñ Abdullahi mi nga xam ne ndeysaan ñu yónnee ojo démb wax ne nanu fexe ba joxe ndéwénal ci waxi sëriñ Tuubaa ji wax ji nga xam ne moom lañ daan def yóbbal ginnaaw gi mu wax ne daal am na ci njàngat wax ne nag ñu ngi ñaan ñu def ci benn ndéwénal tasaarewaat ko ci taalibe yi ndax am njariñ wax ne am na lum ci fas man ko nag pas-pas boobu dañ day ñaan nga ñaan ci sa barke maam Cheikhul Xadim kon mu bañ a yem ci man waaye mu kon fii fi man jaar ci képp koo xam ne rek audio bi jaar na fi yow te nga dégg ko ak ko xamne jaar na ci yow te deggo ko ak ko xamne bu jaaroon ci yow nga dégg ko balaa faale xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wépp nu bok ci jariñu ñun ñep loolu mo waral kon ñu delu ci ngeen ànd ak seen bok asan fal khadimul khadim kàddu gi di bayiko fi ci tubal mahrusa ñu fasiyene yéene kon de wenal gogu ci fu sëriñ bu baax bobu le bokki Cheikhul Xadim anhu ci jeex gum jeex ci yàlla ak yonent bi alayhi salatu wassalam neena dana nek ci wetal sama borom tabarak wa taala ba melne koy jakarlok mom nga xamne damay fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallama su ko defé sunu borom momay xamal nema amna ko wara dox sa digg ak amna ko wara dox sa digg ak man te moy yonent bi alayhi salatu wassalam nee na ma daal di wëlbatiku jëm ci tudd ndami yonent bi alayhi salaatu wassalaam rek ba mujj yonent bi sallallahu alayhi wa daf ma naan xanaa danga fàtte ne am nga boroom ma daal di wëlbatikooti ci wéetal sunu boroom tabaraka wa taala ba mujj nag ma xam ne mbir tey mbir daal mooy rek boole leen ma far sax ci yàlla sunu boroom tabaraka wa taala ànd ak Mustafa sallallahu alayhi wa sallama dallani allahu ala muhammadin waxaadani muhammadun li samadi sëriñ bi nee na juróom-ñaari at yi ma nekkoon Congo nee na sànkuwut de te dana feeñ ca bis ba ñuy feeñal yu nëbbu ya ndax waruma sama boroom ca jaamu ga ma ko doon jaamu waaye moom it de waruma ca fay gi ma doon fay ak dël ba ma dëloon waaye àdduna dadul kër alaxira rek mooy kër nee na adduna daal du këru fay alaxira rek mooy kër liy mbir te mbir mooy alaxira Sëñ Tuubaa nee na kuy santaane luñ mënul ab dof la waaye kuy gàntu luñ mën nag dus gor am na ku doon nuyoog Seexul Xadim radiallahu anhu ne ko mbaa jàmm rek sëriñ bi ko ndax xam nga luy jàmm mu ne cell sëriñ bi ko jàmm de mooy jaamu yàlla barab buñ ko dul defee bu fa jàmm njëkkee yit du fa mujj bokki cheikhul xadim radiallahu anhu nee na bett ngeen ma ma bett leen ngeen bett ma waaye dinaa leen bettaat daat ne bi may woote jortuma woon ngeen gaaw wuy si noonu ngeen ma bette waaye xéewal yi ma leen defal nag laa leen bette yéen waaye ni ngeen def ci xéewal yi nag ni ngeen ci doxale noonu ngeen ma bettaate ni may defaat ak yéen nag ci laa leen di bettaate cheikhul xadim radiallahu anhu nee na taalibe buy jëfe ndigal ak ñaanam ak ñaanu sëriñam ñooyam mas nañuy jàng falaaxi bi fadlillahi fi lawxihi jara bi xayrin mihaahin doona makrin wala xawfi am ku koy yéem wonk cheikhul xadim radiallahu anhu ne ko sama yaay mutakallim jooju day ñépp ñi mel yow dugg nañ ci biir radiallahu anhu Sëriñ Tuubaa nee na ñetti géej yi day néew na ku ci lëbul mooy pexem tubaab bi ak jayu kajoor ak déngatuk naar bi Sëriñ Tuubaa nee na kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def rek boppam Cheikhul Xadim daa mas di wax ba wax lu yéeme am ku ne looloo ko sew sëriñ bi ne ko kenn du ko waxe noonu de nañ ma wol serigne masamba kan ni buso ñu woo ko mu ñew serigne bi waxat lu yeme mu ne lolo ko kawam xel serigne bi ne ko ka sa non lañ koy waxe ñu tuba yalla dafa defon ci mag ñi bari ñu lool ñuko deg ñu deg serigne bi gu zahir ak wog batin te itam ku melne serigne bi buy wax day bëgg lamuy wax ñay nek fi wetam itam doon boromi xel di boromi xam-xam te doon nit Amna na ci cheikh hamne ko xamne bam faato ab tawam lañ daldi indi wajal ko bam jek andak mom dik fi serigne touba xëy ngir bëgg serigne bi deugural talibé bayam yoy ci mom bañ waxé seen wax ba agal serigne touba ne jak waji xol ko xol bu yag ne ko summijil sa mbub mi te dem jaamu ji yalla sa borom señ bi lamay gis ak famay muy ak fam nek ak fa nit ñi nek dafa sore mas nañu ko laaj mom cheikhul khadim ku bëgg sa kafe numuy def señ bi nako bo bëgge sama kafe bokay tangal lepp loy def da ngay wax bismillahi bo demee ba wara a café kafe gi nga tarif li tefle ko ci sunguf sa door a segg kafe ga te mooy faatixatul kitaab ak tàmbalik suratul baqarati ba ca wa ulayka humul muflixuuna nee na képp koo xam ne def nga loolu kafe googu mel na ne moom cheikhul xadim moo ko defar ci loxoom jox la nga di ko jëfandikoo te loolu lu jàpp ni la ci ku ko yàlla man loo ndax loolu guddul sëñ tuuba radiallahu anhu daana bind balla coro mbakke manam dana bind batu balla cioro sing seigne balla cioro nak mo ak cheikhul khadim ño bok seigne mor sali waye seigne bi jël turum wawu muy balla coro dadine bagi ne berbeef, moy mooy lam jimgi gi jim gi moy jar rat gi raa moy rat baagi bisab la kaf gi karoti la ku len di bolé di nan dana la jariñ lol ci walu yaram wala médecine ku ko xamoon la mom seigne Touba dal bo boo bolé mbeur beef ak layduur ak jar ak rat ak bisab ak karité da nga am wergu gi yaram te do gaaw magat loolu lan teunk ci baatu Balla rom Mbàkke rakam ju tedd jojule Cheikhul khadim radiyallahu anhu dana digal kuy ataya lumuy def mu bolé ca bismillahir rahmanir rahim صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسر الأمور buy ñuluk ak buy suukar ak buy xelli Sëñ Tuubaa fay koo xam ne jamono ji dafa xam ne cëfka la te cëfka warta dem ak ginnaaw neen te fa muy sippi itam la mu fay sippi du doy kam ko fay sippil moo tax mu daan bëgg waxtu wu nekk rek bu cëfka li taxawee ñu sëf ko ba mu des gann rek mu yóbbaale fa mu jëm moo tax dawul neenal dara dawul bëgg kuy neenal dara lu mu wax lu nekk wala lu mu xool rek dana ca këfe loo xam ne dana ko sànni ci xooli ni yi ak seeni nopp loo xam ne ak seeni xel loo xam ne njariñal adduna ak njariñal àllaaxira da ca bàyyi ko Cheikhul Xadim mas nay jàpp fekk loxoom boobu ndeysaan mi ngi newwi waaye tewul muy bom moom Sëñ Tuubaa muy génne dëtt ak deret muy wax naan ko yaa xam nooy def de mi ngi wax ak loxo bi naa ko ya xam nooy def de waaye man de ab jaam laa buñ digal te liñ ma digal dinaa ko def rekk di bomb nay san nga xool fa ko sunu borom toll ak fi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam toll yàlla na ko yàlla fayal cheikhul xadim radiallahu anhu mas naa woo ab taalibe mu ne mbakke sëriñ bi ne adduna moo mën a wore ay jamono ci gannaaw rek nit ñi li leen daa bégloo mooy bokk ak buur aw sant yeggul dara loola jeex takk ba mel ni musta am li muy wane rek mooy lam waxoon ne adduna yëngu la baaxoo ak dal bu de yëngu lu yëngu ba rëy rëy dana mas ne tekk ba mel ni mus la yëngu kon buy yëngu nanga nga fab sa xel sànni ko ca dal ga muy dal ndax buy dal bañ la yóbbaale lenn looy rëccu sëñ Tuubaa mas naa toog ci wetu lal ndaysan ci lalam yoy mu dan waajal bam jek nga xane alquran rek la dimun tek ci sotti lat ko lañ di tag alquran diko kagn diko bak di muñ xol bay sigare muy bekk mi ngi toog ci bi ndaysan jël loxom gal ko ci lal bi fel yaa ngi ci kawam ak wacc yoy diko mat waye amu ci soxla mi nga ray lal bi di re na ko lal bi noy nga lol di ta rafet lal ya ci aljana ñu la dak fuf de daa dina gees njabot gi ne ahmadul bashir mu ne ko mbakke mu ne ko suma ragal won ci yeen tiagante ak nelaw yu bari may ci sama lali de waye damay ragal tiagante ak nelaw yu bari cheikhul khadim neena amna hamne, yo xamne ci jawu ji lañu nek ci jawu ji ci kaw ci lañu nek dara du seen liggey ñom xasida yoyu lu kuñ fekk rek nga nek ci la nga wara ne ñu teral la kuñ fekk ci safaan ñu toroxal la kon yalla nu yalla saxal mbokk yi ci nu nekk ci liñ wara ne ndax xasiday Cheikhul khadim yoy nga xamne da ko bind ak ko ci jawu ji te ñuy wëndeelu di liggéey waxtu wu nekk te kuñ fekk jaam buñ fekk rek nga ne ci la nga wara a nekk ñu def ci yow teranga teral la jàll kuñ fekk wo ci la nga wara kuñ fekk ci la wara ñu toroxal ko jàll yalla nu yalla musal ci ñaka ci leen wara ne te yalla nu saxal ci rek la nga la wara ci la wara su ko defee kon bokk yi loolu mooy li nga xam ne rek mooy ndéwénal gi nga xam ne moom lañ sàkk woon ci nun nu jàllale ko muy ab cof buñ cofe ci rek waxi sëriñ bi nga xam ne mooy caxe gi te mooy njariñ li te mooy yiw wi te mooy escalier bi nga xam ne ci la ñuy jaar bi yéeg rek wuy ji suñu borom tabaraka wa taala ba am gërëmam kon noo ngi ñaan yàlla mu fayal mu seexul xadim yàlla nu yàlla defal dégg ànd ak topp yàlla nu yàlla defal xel yuy xalaat di xelli lu am njariñ muy guider sunu xol sunu xol di leer di ànd ak mbégte di jëm ci sunu borom te yàlla defal nu ci ragal yàlla ba fees dell te tàggatal nu sunu cër yi sawaral ko lool ci jëfe ndigali sunu borom yi te yàlla sunu borom kàttanal sunu ruux leeral ko ba mbokk ci arwaax yi nga xam ne. ñooy ñooña rek nga xam ne ñooy ña jiitu te nekke woon fi lañ fi war a nekk rek nekkoon ci lañ war a ne ba sun boroom xëy woo leen jëmi leen ca barabam yu naat yu yooyu nga xam ne du bekkoor mukk muy jëm yooyu nga xam ne moom la alxaadima jaxate kala doon laaj sëñ Tuuba ca bayitam wu neex wa ca paiya ba te mooy bam bindee seexul xadim bataaxal di ko laaj ndax jooy war na sang yu fàddu yi nga xam ne asamaan ak suuf ñu ngi leen di jooy lam ko bind jox mooy xoqal bukaau ala saadaati amwaati tabkil araadi alayhim ka samawaati sëñ Tuubaa jël xalimaam ko tontu tàmbale ci abki alayhim wa arju fil bukaai xadan ridwaana man fiihi qaabo lil xalaawaati muy xasida neex gu fees dell nga xam ne sëñ sàmbay nee na moom la cheikhul xadim resimé masalikal jinaan daal di wax ma daal di wax ne xaw ma nag moom yeneen xasida yi waaye li ma biir mooy xoqal bu kaaw moom sama baay si ahmadul kabir mbay moo ko maas moom la ko cheikhul xadim maas la kon ñu ngi taxawlu foofu di nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp ñaan yàlla mu dotti leer ak mbégte ak xéewal ci ruux ak cheikh muhammadul mustafa te may nu wër te may ko xeetu yonent bi te jamm ji nga xam mo gën ci ab jamm fi ci aduna gën ci ab Ya ci barsàq gën ci ab jamm ci alakhirah yalla na yalla may yetti jamm yoy ci ñetti barab ci ko ñu tan ki di sey sangu bindi fi di sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam barke abdullahi wa khadim rasulih yalla na ya yokk mbégtem seexul khadim ci rasulullahi wa yalla na yàlla yokk itam mbégtem rasulullahi ci xadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngeen àndoon ak seen mbokk Xasan Fall xadimul xadim kàddu gi di bàyyi ko fi fi Tuuba al Maxruus assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dal leen jàmm ci kër bàmba Imo kër bàmba Imo mooy seen agence immobilière bi nga xam ni dafa spécialisé wu lool ci kuy jënd kër képp ku bëgg jënd kër ci Touba ak ci réew mi yépp ñoo lay gunge location kër ñoo lay gunge waaye it nga am sa kër kër gu rafet defar ko ba mu ñu gérer la ko ba mu baax la ko di la verser sa xaalis ñun ñooy kër Bamba Imo fii ci Touba kër Bamba Imo fii ci Touba spécialiste la tamit ci ay terrassement de maison wala boog terrain plan bâtiment construction de maison lépp lu jëm ci immobilier jokkoo la kër Bamba Imo waaye nag dañu am agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage de la dañu lay le sa kër waaye dañu koy garder de dara du fa yàqu sécurité ñun dañ ciy dox ci entreprise bu wér te wóor am nañu it service transfert d'argent assurance de véhicules, toute branche suñu siège mi ngi nekk marché Dalifort 77 339 88 55 le 77 233 36 17 le 33 832 37 18 suñu succursale ba ci Touba Madame suñu place ba Touba Touba 28 Djanok route national bi ak station Mac. Kurbamba Imo 77 446 23 40 wala 33 978 40 89.